ndax ñaar fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne sëriñ bi dana nu yebal ci rajo jumaa ji ñu yéene fi wax ne nañ séentu weer te lu ko bu ñu bi nga xam ne sëriñ Modou Mamoun Boussa moo ko jiite di séentu weer ak di taatan xibaar yi ci gox bi gox yi ban ko defee ba waxtu wii jot nag boole euh, bari na béréb yu baree bari yoo xam ne xibaar jóge na fa jot si jot ci nun wane ne gis nañ weer wi ba ci biir Touba gi ci jànnatul Mahwa am nañu ko fi ñu ko fa gis bañ def ba ak ak ak ndaam ak ndaam nga ci sër ak yeneen biir ak cekkin léegi nag biñ defee noonu dañoo jokkoo waat ak kër Cheikh Mouhamadul Mountakha yëgal ko loolu biñ ko ko yëgalee léegi mu mu ne loolu doy na kon mën ngeen ne yëgli ne weer feeñ na kon suba mooy korité na ko ñëpp xam kon suba ci àllarba ji mooy benn fan korité gi na ko ñëpp xam kon nag ñoo ngi ñaan sëñ bi gën fee yàgg bu baax a baax te ànd ak te ñu yàgg ci gannaaw waaw muuru koor yi ñu gaaw génne ko bala ñoo julli ji ndax waaw muuru koor yi nañ gaaw génne bala ñoo julli ji ndax waxtu wi la war te léegi bu ñu ba julli ji ba ñëw léegi de ko yonente bi dafa wax ne ku ko di génne sarax nga génne waaye génne woo muurum koor kon nag manees na ko koy léegi nag liñ fii moom li ñu wax ne moom mooy mooy li ci gën a fës ci kii mooy ñaari kilo ak genn wàlli bar ñaari kilo ceeb ak genn waa liibar wala pepp wala genn waa liibar ndax li ëpp ci li dëkk bay dundee ci lañ ci lañ koy génne kon yaar yooyu moo ëpp ci li li ñuy dundee fii kon ñu gaawee ko bu baax tey ñaan it tey xam ne nag génn nañ ci woor weeru koor waaye weeru ko liñ ci doon jàppak ak liñ ci doon bàyyi lépp de nañ ko gën a nañ ko gën a yokk loolu daa mel ne lañ ci doon yëngatu la ngir mu suñu yaram miin ko waaye diggante koor yeeg jàng alxuraan yi diggante jàng alxuraan yeeg eh, saraxa yeeg joxe yi lépp rek nan nañ ak jaamu yàlla yi nañ ko gën a ful ni ñu ko fulee woon ci koor gi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu